di leen dalal fii ci Daarul Moxti waaye ci biir kër Serigne Abdourahmane moom boroom Daarul Moxti te kii jiite njaboot gi nekk ci bopp bi di sëriñ Mbacke Daba Sarr ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko euh, bis bi it euh, di bis boo xam ne bis bu tedd la de nesu saabaan di bis boo xam ne bu euh, doon niñ ko xamee buñ ko doon misaal ci àddina rek mooy bis bi ñuy woote budget ndax ci guddi gi ñu génn ci la suñu boroom di tàqale ñi war a fekkee déwén ak ñi ñi nga xam ne duñ ko fekke waaye wërsëg yéeg yëpp dogal yi day mel ni ci guddi gi ñu génn ci lekk ko suñu borom di dogal ci jaamam yi muy bis boo xam ne kon umma islam bépp ko bokk muy bis bu tedd boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa santaane na ci yu bëree bëri waaye waxtam ay ngëneelam waaye nag li ñu tax a jóg te mooy ki feeñ ci ki nga xam ne moo moo tax euh, bis bi ñuy jog ci mooy borom Daaru Muxti ndax ku xam na ne Cheikh Ahmadou Bamba bu mu jógee ci tukkeem bu barkeel boobee wàcc fi nga xamante ne moo di ndar euh, dafa ko woolu yónni Serigne Issa jenn mu ñëw ci moom woo ko daje googu mu dajeeg moom na ginnaaw tukkeem bu yàgg boobee nga xam ne ba muy dem moom la dénkoon lépp euh, muy mbégte moo xamante ne bii ci ndigalul Cheikh Mamadou Faat lañ ko tàmbale di ko ci màggal di ci fàttaliku borom daaral moxti ngir mbégte moom amoon ci dajeeg magam jooju nga xam ne tubaab bee ko génne woon ci tuuma yu tegewut fenn ci ak tooñ euh, teg ko coono yu métti Ah, borom daaru féete woon ko ginnaaw yoraloon ko njaboot gi borom daaru moom nag moom la ñuy màggalal ci bis bi. Ah, ngir borom daaru nag ku ne xam na ne mm, rakki borom Touba la ñu bokk Mamor Anta Sali waaye noonu tam lañ bokkee tam ci wàllu néegum ndey muy koo xam ne ah, mën nañ ku ne mën nañ laa limal fan nga ànd ak sëriñ wala waxtoo nga ànd ak moom waaye borom daaru moom daa mel ni dafa feeñ rek sëñ Touba jëlal ko boppam mu mel ni kon daa judduwaale ak murid moom moom borom daaru moo ti muy ak jagle goo xam ne suñu borom moo ko jagleel li xam ne moom la war xamit kenn jàngalu ko Serigne Touba moo ko jàngal Serigne Touba moo ko jàngal alxuraan Serigne Touba moo ko jàngal al euh, xam-xam Serigne Touba moo ko tarbiya moo ko yar. kon muy koo xam ne nekk ci moom ci ay jikko yu tedd yëpp mën nañ ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko def ci moom mu nekkoon nit ku mat nit ku dal nit ku yiw nit ku yeewu koo xamante ni kii bari na barab yoo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba bu xat-xat musaana gaar ko ba mënta dem borom daaru lay yebal moo koy teewal euh, doy na ci sëkk euh, woo bañ ko woon borom daaru Muxti la tànn yebal ko mu dem teewal ko ndar wane fa njàmbaar wane fa ak mat euh, ba nga xam ne demoon nañ sax ba jàpp ne kii mooy sëñ bu mag bi ngir pëstëf ba mu amoon ak ñime gi nekkoon ci moom ak njàmbaar gi. muy koo xam ne itam nag yoonu murit mën naa ne mënu koo ñàkk ndax euh, la ko sëñ ba wax ne ko bu fekkonte sëriñ Serigne Touba dafa nekk Moussa kon maam Thierno mooy am Harounaam. Eh, bu bu Sëñ Tuubaa nekkoon Seydina Muhammad mën nañ nekkoon Cheikh Ibra Faty dafa nekk Seydina Aliou ci moom wala Seydina Omar nga xam ne ñu bëri dañuy jël benn jikko waaye borom Daaru Muxti daa daa jël jikko yëpp moo tax eh, ñu naan ko dëggal ga woon ca Babacar Siddiqu dëggu ga woon ca Umarul Faaruqu tabe ga woon eh, ca saaxibu Nuureeni njàmbaar ga woon ca wàllu sib tay ni yii jikko nag la Cheikh Rafaati jikkowoo mat sëkk gaynde gaynde rek lay mën a doon nga xam ne moom maanaam dañoo man dañoo man ne dafa incarné woon ay ay ay yu bëree bëri muy koo xam ne euh, bisam nag bu ñëwee dafay jaadu ñu am ay tomb yu mën a jàngat ci moom tomb yoo xam ne euh, doom aadama yi war nañ koo bàyyi xel di ko topp ci ak dundam ngir mu mën a nekk bind boo xam ne dañ koy mën di jariñoo xam naa foofu rek la ñuy wax ndax nit ku baax moom bu ñu koy fàttaliku li ci ëpp solo mooy ñu xool lam doon dund ñu nan lan lañ ci mën a jariñoo ba man koo dund mu bokk ca euh, lañ ko war a mën a roye mooy dafa nekkoon moom borom daaru loxob ndeyjoorub Serigne Touba maanaam adaduhul ay man te Serigne bi bind na ko bataabal bataaxal boo xam ne loolu la ca def ne ko mata ataaka adudi kitaab yi fa karimal kitaab bi mataab loolee kon mooy wane moo nekkoon kon ki nga xam ne moom la Serigne Touba àndaloon euh, liggéeyam bu tedd boobu. ndax bi mu feeñee rek la ko Mamour Anta Sali wax ne ko euh, bi mu euh, bi mu àddoo di góor la ko ne kon sa dem nga jarut ndax borom Tuubaa dafa bëggoon a dem. ba xam ne daf na woon yan bi nga xam ne moom la ko suñu borom bëgg a li mu koy teg xëy na mënu koo liggéeyee fii jëloon na ay bagages ba na regem dem gànnaar waaye Mamour Anta Sali ne ko euh, na ngay néggandiku ndax li nga xam ne moom la soxna Faati sa àndal bu ñëwee di góor jarut ngay dem bu dee jigéen nag mën ngaa dem bi mu àddoo Euh, mu nekkoon ko nag li nga xam ne moom la la suñ borom nar a ci biyen kii moo la ci nar a jàppale borom moo ti kon moo nekkoon euh, dëgër laayal borom tubaa bi ci tege mooy euh, dafa mel ni moo daan représenté suñ tubaa ci barab yëpp maanaam barab bu mu waroon dem te mënu faa dem borom daaru moo ko fay représenté ndax sëñ Tuubaa dafa nekkoon koo xam ne tab jana woon lool ci digganam ak boromam ba yu bëree bëri mënu koo taxawee kon biir këram borom daaroo ko yoroon am jàngale borom daaroo yar bi borom daaru moo ko yoroon ndax kat moo ko waxoon ne euh, naa day tukkal yow ma bi Ibrahima allim fatan yan fahu tafhima woo naa la tey ji sawtur ngay sebra faati kon nag na nga jàngal képp ko xam ne am jàng dana ko jëriñ mu def ci mu def ci ñoom ci yar ak teggin ak xam-xam ba benn mauritanien di ko wax ne ko rabbal muridina wa aqra al banin an nujaba il azkiya tilka sinin borom daar daal mooy koo xam ne moo yar murid moo jàngal doomi Serigne Touba yi jamono jooju nga xam ne Serigne Touba mi ngi ci tukkeem bi nga xam ne lu ne jànkonte na ko ci ay jafe-jafe ak coono ngir sàmm li nga xam ne mooy njabootu borom Tuubaa beneen biñ ci mën a jàngee nag mooy nekk ab murid saadix li maanaam bu ñu nee murid saadix li muy li muy wund borom daal daf koo dund doo na ci sëkk misaal Sëriñ Tuubaa ko xam na ne bi euh, noon bi tuumaale ko ci ay ngaan ak ba ñëw Daaru Manaan di ko visite bi ñëwee foofu sëriñ bi bi muy dem dafa joxe woon digal fekk ñu fa Sëriñ Tuubaa fekk na moom mu génn bay dem borom daaru moo fa desoon da leen a joxoon digal ni leen mu fekk nga toog bul jóg ku mu fekk nga tëdd bul toog dara du xew ni leen bu leen jëm dara itam tubaab bi ci càgganam ak mbonam ak naqaral sëriñ Tuubaa dem nañ bay tuur ndox fi sëñ bi doon defe xalwa di jël seen jaas yi di ko dagg sàkket wi di gërbal seen fas yi ba suuf si dal ci ko mbubb ba mu daal waaye yëngatu dal googu ak ndigal loolu mu doon jëfe te ku ne xam ni mel ci jàmbaar mënoon koo faj waaye jëfe ndigalul sëriñ Tuubaa tax na rafut kon loolu war nañ ko mën a jànge ci ñoom mooy jëfe ndigal beneen bi itam nag euh, maanaam ñu ko war koo jàng mooy kuñ jox responsabilité surtout suñ jamono ji nag bari na ñoo xam ne tey boo leen joxee responsabilité boo ñëwee am ca loola naqari xoola borom daaru li ko borom Tuubaa bàyyee yoonu murit jox ko njaboot gi wan ko ginnaaw mais pour pour woon la ne ku fonk responsable bi pas bi tawat di ñëwee ba dal njaboot gi nga xam ne mu dafa taxaw garanti boppam ne ko ñii ma Sëriñ Tuubaa bàyyee bu ci kenn naree dem jëlal samagro jëlal sama ruuxu waajur wu jigéen jël sama ruuxu doom yi te bàyyi fi doomi Serigne Touba yi donc xullin loolu maanaam maanaam jëmmi responsabilité boobu ngir ngir rek sàmm responsabilité bi Serigne Touba teg ci ay loxoom loolu tam képp ku ñu dënk dara war ngaa bàyyi xel ne lañ la dénk da nga kaa war a fonk da nga kaa war a ñoŋal waaye bari na ñoo xam ne li ñu leen dénk lépp dañ koo jalgati kon lool noonu mooy fonk responsabilité ak man koo sàmm bokk na ci jikko yi nga xam ne mën nañ koo euh, euh, jàngate ci borom Daaru Muxti waaye itam nag dafa nekkoon jëmm joo xam ne mën nañoo roy ci moom lan mooy liggéey production xoolal 40 kilomètres carré ku ko gor ay addiya mosta teggeeku ay mbaam lañ daan sëf ñi daan yenu dañ daan yenu ba dañoo mujjoon defar ay tóoj yoo xam ne bu ñu demee ba sonn ci la ñuy teg kon nga xam ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat lépp borom daal daf koo boole woon yëpp daf koo boole woon euh, doon ko dox ak magam jooju nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon tam loolu jikko la joo xam ne mën nañ koo jàngee ci moom